ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Rapidement ñu go through this chapter baabu tajwid uh, now Fatou Kiné I'm going to read it in English, in Arabic then you can you will read for us the the translation in English wal axdu bi tajwidi xatmun laazimun man lam yusaxixi alqurana aathimu am na lii benn euh, nusxa la am na ci nusxa man lam yujawwidi al-Qur'ana aathimu Okay. Mm-hmm. The practical application of tajweed is without doubt compulsory. Who does not read the Quran correctly is a sinner. Yes. So boo defee man lam yusaxix al-Quran mooy ku wéralul jàng al-Quraanam problème man lam yusaxix nag ki déggul mën na foog ne ku wéralul alquran te alquran nekkul lu wére di lu ñuy wéral waaye ku wéralul njàngum alquranam moo tax am na ci yenn kàppi man lam yu jawwidil qurana moo ci nekk ku respecté wul atey tajwid ci alquran ku tajwidul alquran am na bàkkaar loolu la bëgg tajwid wala xam mooy xam-xam bi nga xam ne ci la ñuy gëstoo baati alquraan yi ci ngir ñu mën a génnee bépp xaraf ci genn waayam bépp xarafit ñu jox ko xaqam ak lamu mu yelloo ci melo moo tax mu ne eh, jàng alquraan xam tajwid dafa war pour prouver ne dafa war nag wala li lay wan ne dafa war mooy képp koo xam ne jàng nga alxuraan mu wérul yaa ngi am bàkkaar doo wax quraana da nga ndax boo ne quraana fii woy bi dafay yàqu te quraana baax na quraana baax na mu ngi mel ni sànq bi njóoba di jàng suratul jinn xam naa ne daf ko mokkale woon ak warsh ndax wa anna yooyu yëpp de ci ci su wa inna la waaye booy jàng xafs nag nga jàng xafs boo gisee mu ne képp koo xam ne nag wéralul jàng alxuraanam am na bàkkaar li nga ciy déggee kon mooy xam xam xamu tajwid farata la xam xam xamu tajwid farata la xam xamu wit nag ñaari xaaj la am na xam goo xam ne mooy xam atte ak sew-sewaan yi loolu fardu kifaaya la bu ko lenn taxawee ci xeet wi mu wàcc ñi ci des waaye bu dee tajwid tatbiq yi nag muy the practical application of tajwid kooku moom farata la ci bépp jullit parce que yàlla moo wax warattilil qur'ana tartila yàlla moo ne na nga tartil alquran te amru la ndigal la moo tax mu ne wal axdu bi tajwidi xatmun laazimu xam xam-xamu tajwid dafa war bu dee xam ko ngir nga xam lu nekk na mu tudd ci wàllu gunna ak wàllu baat bi lii la tudd terme bi lii la lii mooy maanaa mi loolu moom bu ko ñenn xamee mu wàcce ñu ci des waaye nag pratiquer ko même su fekkee xamuloo lanay lan kooku moom farata la ci ci ñëpp ndax soo ko xamut dafay tax nga yàq ni ngay jàngee alxuraan te yàq ni ngay jàngee alxuraan dafay tax nga yàq maanaa mi te boo yàqee maanaa mi danga wax ne yàlla wax na lu yàlla waxut moo tax ci jàng alxuraan dafa am ay façon yàq loolu lay wax fii ci suuf ah gis nga fii ci suuf mën nga liir mistakes are of two types laxnun jaliyun and laxnun xafiyun ñaari façon yàq moo am yàq bu feeñ ak yàq bu nëbb laxnun jaliyun mooy de clear and obvious mistakes they are labeled as what laxnun jaliyun this type of mistake should be corrected and avoided because it may lead to change in the meaning grammar or incorrect in the Arabic language ndax boo ko yàqee bu dee yàq bu feeñ la dafay tax maanaam alxuraan bi firi loo xam ne waru ko firi te loolu ku ko def am na bàkkaar su fekkee moo ko tey wala tayiwut ko waaye mi ngi ci attey ku ko tey mooy góorgóorluwul ba mën koo jàng nim ko war a jànge su fekkee góorgóorlu na nag jàng ko lim mën waaye làmmiñam dafa am accent dafa diis wala noonu la ko yàlla bindee kooku mën nañ ko comprendre waaye kii deful benn effort nag di jàngay alquran mel ni kuy lekk laaxu caaxaan kooku dafay am ndax dafay def laxan jali mooy di obvious mistake bu dee xafi nag mooy the hidden mistake boobit mën naa bañ a yàq maanaam mi waaye dana def dana affecté euh, njàng mi ba ni mu war a mel du ko mel yaa ngi dégg de laxan xafi nga gis ne ni ñu war a jàngee dana des waaye du tere maanaa mi moom du yàqu wax nañ ne sax laxan xafi muy yàq bu nëbbu ñaari xaaj la am na simple lu mel ni euh, fu nga war a xëcc baat bi ñeenti xaaj ñeenti xarakat nga xëcc ko ñaari xarakaat wala par exemple nga bàyyi na ci miim ak nuun nuun ak miim buñ leen chadde dafay am na lii ki ko def su fekkee moo ko tey walla dafa sàggan dafay am bàkkaar ndax pratiquer tajwid fardu ayn la su fekkee ki ko def moo ko tey dafay am bàkkaar su fekkee teywu ko waaye defut la mu war a def pour xam ko ba tële kooku dafay am bàkkaar am na laxn xafi nag mooy yàq bu nëbbu boo xam ne nëbbu gu dafa tar ba euh, spécialiste yi ñoo koy ñoo koy xam en général lu mel ni temps bi nga war a xëcc nga xëcc lu ko ëpp wala xunna bi nga yokk ca yokk bu tuuti loolu nee nañu ki ko def moo du am ga waaye nag na la pour bàyyi ko ndax nu mu ko gën a bàyyee njàngam gën a rafet kon kuy jàngal xoraan di ko yàq moo xam yàq bu feeñ la wala bu nëbbu nëbbu goo xam ne nëbbu simple la su fekkee borom moo ko tey wala dafa gàttañ lu ba xam luwut wut dafay am bàkkaar su fekkee farlu na nag def na lim mën e, ci biir jàngam mu ngi yàq kooku du am bàkkaar dafay am sax yool maanaam yaa ngi jàng di yàq ndax danga bëgg xam yàq boobo ci biir njàng ma doo ci am bàkkaar tiyaabo sax ci am ndax danga nekk ci pratique pour mën koo xam looloo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne ki nga xam ne mi ngi jàng alquran jàng ma gën a baax ma gën a rafet muy almahiru bil quran mu ne yàlla koy boole assafaratul kiraamul barara muy malaaka yu baax yooyu mu ne waaye kii jàng alquran nag di góorgóorlu te njàng mi métti ci moom nee na am ñaari yool mooy yoolu jàng mi ak yoolu góorgóorlu gimuy muy góorgóorlu ngir jàngee ko ko war a jàngee bi mu ne la tajwid farata la mu mel ni danga koo laaj lu tax ma liir lii am naa ajaa njooba nga liiral ma traduction bi li annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala li annahu bihi lilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala aja njoba are you are you with us njoba dégguñu la de wala nga xam ne ok am baax <laughs> ok bisimilah dama ko mutoon dama élargir woon écran bi kii bi dem quoi. ok vas-y. ok euh, because this Quran was revealed to us by Allah in this form and exactly like this with tajweed it reaches us uh, from our prophet sallallahu alaihi wasallam then related to inauthentic uh, chain over. Chance. generations. Mm-hmm. chance over generations to our parents. To our present to our day. Parents, to our, to our present. present day. Mm-hmm. To our present day. To our present day shuyukh mean to our present day teachers. Shuyukh mooy the the plural of sheikh. Teachers. Oh, okay. Teachers. And, uh, and those with uh, ijaza. Ijaza. Maanaam nii la ko Yàlla wàccee. Njóoba yow mi la yow mi la sa problème sa téléphone am problème dafa yow mi yaay aw yaay ci ubbee sa bos booy wax du am problème mais man su wax dafay tëju mën nga tëjaat sa donc ñaari raison tax ñu war a sonne tajwid bu njëkk bi mooy nii la ko yàlla wàccee ba ko yàlla wàccee ni it yonentu sallallahu alayhi wa sallam ko wàccee ci moom mu jàngee ko noonu jàngalee ko saxaaba yi noonu saxaaba yi jàngal ko ña topp ci ñoom ba mu agsi ci ñun ci suñuy sëriñ kon nag ni nga xam ne noonu la wàccee ba agsi ci ñun génération en génération we have to protect the legacy loolu ñaari raison la waaye benn la beneen raison bi mooy wa aydan xilyatu tilaawati wa ziinatu l adaai walqiraati fatima bint ibrahim wa huwa aidan xilyatu tilaawati wa ziinatu l adaai walqiraati translation fatima if you are around fatima bint ibrahim wa huwa aydan xilyatu tilaawati wa ziinatu l adaai are you there Jor if you are there ki dindil sa sa unmute yourself and read wa huwa aydan xilyatu tilaawati wa ziinatu ok. wa no no no kii ma the translation. ok. and his tajweed is also a, beautification of recitation and an abandonment of pronunciation and reading. mooy gannaaw bu mu nekkee farata sama borom wàccee ko wàccee alxuraan nii tajwid moom ci boppam mooy takkaayu njàngaay maanaam xam nga boo soloo ba rafet da ngay takk takkaay pour mu rafetal baat bi mm-hmm. tajwid mu ne mu ngi mel ni mooy takkaay bi rafetal baatu jàngum alxuraan mooy taaru jooxe gi ngay jooxe ak jàng gi ngay jàngal maanaam sooy jàngal xuraan te joxuloo te jànguloo ko ci euh, respecté ate tajwid jàng ma du neex parce que du baax du rafet hmm. mu mel ni nag dañ ko laaj lan mooy tajwid mu ne wa huwa i'taa'u al-xurufi xaqqaha min kulli sifatin min kulli sifatin wa mustahaqqaha Khadindoy can you read the translation Khadindoy are you here wa huwa i'taa'u al-hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha uh-huh. and it touch is give is uh, is required right. Each letter of is required right. Mm-hmm. Of mm. each and every characteristic as well as giving each is present rights or dues. Dues mustaxaq al xarf maanaam wa huwa moom tajwid ictaau lxurufi mooy jox xaraf yëpp xaqaha seen xaq min kulli sifatin ci bépp melo melo xaraf yi njàngoon fukki ak juróom ñaar xaraf wu nekk lam ca am ci xaq nga jox ko ko ba mot sëkk wa mustaxaqaha ak lañ ko ca jox ci xaq am na xaq yoo xam ne xaq yu original la am xaq yoo xam ne xaq yu gaar lañ maanaam am na yoo xam ne xaraf yi mënut a bañ a mel noonu waaye am na yoo xam ne nag xaq circonstance la mooy mustaxaq hmm? dara du am na yoo xam ne fokk nga jàngee ko xaraf wi ndax boo koy jàng fokk nga dina la wax fan nan ngay def sa làmmiñ wala nan ngay def say tuñ wala nan ngay def sa put wala wala loolu mooy xaqam am na loo xam ne nag dafa am circonstance dafa am fu xaraf wi dugg moo tax ñaar yooyu yëpp nga xàmmee ko ñaar yooyu yëpp nga xàmmee ko kon tajwid mooy jox xarafu nekk xàqam ak lañ ko jox ci xàq maanaam xaq ji moom ak xaq bi nga xam ne des ko ko des ko koo jox lu mot a bàyyi xel la loolu mooy tajwid wit wu nga jox ko xaqam ci ay melo jox ko yi tamit ya nga xam ne dañ ko ko baaxee ci xaq maanaam xaq yi nga xam ne daf ko dab dafa am ay sifaat al dhatiya am as sifaat العرضية أم الصفات الذاتية أم الصفات العرضية loolay tajwid su ko defee boo dee jàng nag pour mu rafet benn ngay jàng jàngum taxqiq wala ngay jàng jàngum xadr wala ngay jàng jàngum tadwir ñetti façon jàng ñoo am taxqiq ak xadr ak tadwir taxqiq mooy kiy jàng alxuraan jàng mu yéex mu dal ànd ak setantal maani ak sàmmwanteeg atte tajwid yi jàng mu yéex mu ngi mel ni way déglu dégg nga tajwidu cheikh mahmoud xalil al njàng moom nag lañu bëgg ci kuy jàngale moo tax nga boo demee Sénégal ak yenn dëkk daara yu bari dañuy am ay kasetu xosor yi di ko tegal xale yi ñu koy toppandoo jàngam dafa yéex te dafay respecte tabaarakallaahu ya nga xam ne ñoom ñooy atte yi mu am njàng mu ñuy wax alxadr mooy njàng moo xam ne dafa gaaw wante du tere nag borom respecté ahkaamu tajwid njàng mu gaaw waaye du tere nag nga respecté attey tajwid am njàng mu ñuy wax ak tadwir ak tadwir nag moo nekk ci diggante xadar ak taxqiq njàng mu digg doomu lay doon ci gaaw ak ci yéex bu ko defee waaye borom du tere it mu sàmmwanteeg tajwid kon yàlla bu ne warattilil qur'aana tartilan mooy nga tajwid ko moo xam mu gaaw moo xam mu yéex moo xam mu nekk ci diggante bi mu ne loolu mooy xam-xamu tajwid ictaa'ul xuruufi xaqaha jox xaraf yëpp seen xaq min kulli sifatin ci bépp melo mooy caractéristique yi njàngoon wa mustaxaqaha ak liñ ko may ci xaq mooy yi nga xam daf ko dab loolu rek mu ne déedéet wa raddu kulli waxidin li aslihi wallafdu fi nadirihi ka mithlihi hmm, kan moo liiragul ñu ñëwaat ci Fatou Kiné to take every Fatou Kiné sorry uh, I'm mm-hmm. to take every one of the letters back is a region, example, place of articulation, and to pronounce the equivalent letter in the same way as you would pronounce that, letter. lii ñaari xaaj la waraddu kulli waxidin li aslihi loolu mooy maxaarij leer leer bu nekk nga delloo ko ca maxrajam xam nga ci fa lay wax na la sifaat fii mu wax la maxraj hmm? maanaam tajwid mooy ixraaju kulli xarfin min maxrajihi alladi yaxruju minhu xaraf wu nekk nga xam ndax ci throat letters yi la bokk nga génnee ko foofu nga xool ndax ci xuruful lisaan la bokk muy letter tongue letters nga génnee ko foofu ak ban partie ci làmmiñ bi nga xool ndax ci lips letters la bokk nga génnee ko foofu yaa ngi dégg looloy ñaareel bi ñetteel mu ne wallaf fi nadirihi ka mithlihi moolu defe naa waxoon nañ ci ci jotaay bale weesu balaa ñoo dem umra ma ma maanaam baat bu nekk nan ko jàngee su ñëwaatee ci biir njàngin mi noona nga koy jàngee mu ngi mel ni par exemple nga am madd aarid li sukun lu mel ni baatu majid qoof wal quraanil majid nga def ko ñeenti xarakaat loolu sukkoon aarid la mooy sukkoon goo xam ne dafa gaar si xam nga boo ne wal qur'aani al majiidi ngay wax waaye comme da ngay taxaw nga sukkoon daal ba lool mooy sukkoon aarid léegi nag bi nga sukkoonee daal boobu ndax sukkoon bu gaar la ndax li nga fa taxaw nga def ko ñeenti xarakaat bépp baat bu melati noonu noonu nga noonu nga noonu ngay def lu mel ni shiqaaq ah atid do doo doo boo boo bi xam ne baat bi soo ko defee lay ñeenti xarakaat yi mel ni moom yëpp ñeenti xarakaat nga fay def donte mënu nga def lu uteeg ñeenti xarakaat waaye comme def ko ko ñeenti xarakaat rek mel yi mel ni moom yëpp ci biir njàng mi na ko jàngee noonu mu ngi mel ni alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim boo defee ñaari xarakaat continuel boo defee ñeenti xarakaat continuel ñeenti xarakaat waaye bul wax ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim gis nga bale nga guddal bii nga gàttal deret hmm? ndax ñoom ñëpp seen sukkoon dafa gaar si ndax miina la ak rahimi waaye comme dangaa taxaw nga sukkoon loolooy sukkoon su gaar daf la bëgg a wax ne rek wa lafdu fi nadirihi ka mithlihi waaw ah, baat yi bokk atte ba nga ca njëkk a jàng na ko jàngee dégg nga noonu ngay jàngee ya ca des su fekkee ne am nga choix jàng ko ñaari xarakaat wala ñeenti xarakaat mais bi nga njëkk jot ci njàng mi ñaari xarakaat nga ko jàngee ya des yu mel ni moom yëpp ñaari xarakaat nga leen di jàng mukammilan min gayri ma takallufi bi lutfi fi nutqi ah kan moo kan moo kan moo Adja Njoba complete with Adja Njoba mukammilan min gayri takallufi ah dafa mel ni Adja Njoba dafa génnoon de dugalaat ko Fatima Ibrahima su fekkee yaa ngi foofu ok Adja Fatick ne continuel boog la la di ñëw. ok complete. with all its characteristics, yet without any exaggeration, being gentle in pronunciation without any abuse. maanaam mm-hmm. bul exagérer bul abuse bul bul baaxal ba ëppal ca bul jéem a prononcer baat bi na mu waree ba teg ca coono bu ca bu ko jarut. wa ma ana min la yàlla waxal yonent yow ne man bokk ma ci ñi exagéré. man Bachir mooy ci dem. mu kammilan ma takallufi bi lutfi nag maanaam nga fexe lépp nga matal ko te doo ca toggoo yenn coono yi nga def ko gently ci tudd gi Adja Dior mën nga mute sa bopp ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg Adja Dior mute yourself please bi lutfi fi nutqi bila taassufi mu mel ni nag da nga ne ko léegi loolu su ma ko bëggee am ma am perfection in my tajwid lan laay def mu ne wa laysa baynahu wa bayna tarkihi illa riyadatum ri'in bi fakkihi there exists nothing between between applying the tajweed and leaving it except for a person to exercise correctly correctly hmm? with his jaws xam naa loolu la xëy na jaws dafa am rapport ak gémmiñ rek maanaam baat wala xaraf woo xam ne da nga ci am problème nga di ko pratiquer foo toll nee na te di ko pratiquer ak koo xam ne xëy na mën na laa dimbale soo gisee ku la mën a dimbale soo ko gisut it mën nga koo gis léegi ndax euh, am na ay vidéo tajwid yu bari yoo xam ne nga xam nag ka ngay jëlee ci moom tajwid hmm, doo fekk ku mel benn Mouhamed Sakho koo xam dafa am accent bo fees del ngay jàngee ci moom yenn boo gisee ku mel ni Ayman Suwayit nga xam ne expert la kooku boo gisee vidéo mën nga ko toppandoo waaye léeg-léeg nga gis ku lay jàngal tajwid wit moo la gën a moo la accent fukk fukki junne yoon ah, te du ko bàyyi xel bu ko defee loolu mooy loolu la bëggoon a wax fi wa laysa baynahu wa bayna tarkihi illa riyaadatu mri'in bi fakkihi imaam aljazari wax na ci kitaabam bu ñuy tuddee an nashr bil qiraati al ashr mu ne laa aclamu sababan li buluugi nihaayati al itqaani wa tajwiidi wa wusuli gaayati tasxiixi wa tashdiidi misla riyaadati al alsuni al ala allafdi almutalaqa min fami lmuxsini mu ne xawma benn yoon bu gën a baax boo xam ne mën naa yóbbu nit ci mu xereñee tajwid xawma benn yoon buy tax nga yegg ca fa nga war a yegg ca tajwid bu mel ni tàggatu ci làmmiñ ak di baamtu baat bi nga bëgg xam liñ koy jànge te nga déggee ko ci ku ko mën a jàng dégg nga de léegi nag mu dugg ak ñun ci at tanbihaat lii ni bëgg naa ñu jaar rapidement ndax li ma gënaloon sax mooy bu ñu paree fii ñu dem ci tuxfatul atfal pour jàng axkaamu noon asakina wa tanwin waaye yii tamit am na ja am na am na am am na solo lool hmm? the chapter mentioning what somewhat huh? some warnings baabun fi dhikri baadi tanbihaati hmm? paat yu bari ci alxuraan yoo xam ne boo deful ndank mën nga caa def erreur te fekk teeyadi la teeyadi teeyadi mu bëgg nag ñu bàyyi xel ci yooyu mu ne faraqiqan mustafilan min axrufi wa xaadiran tafxiima lafdil alifi faraqiqan na nga apply tarqiq na apply tarqiq mustafilan bépp xaraf woo xam ne aji suufe la mustafilan aji suufe min ahruf ci xaraf maanaam bépp xarafu istifaal xam nga jàngoon nañ xarafu isti'la ak xarafu istifaal n'est-ce xam ndax na a ngi may dégg am déet nañ jàngoon nañ xarafu istifaal ak xarafu isticla isticla ñoo doon xoo saad daad ghayn taa qaaf daa xussa daqtin qid yooyu ñooy xaraful isticla léegi nag bépp boo xam ne du xaraful isticla xarafu lan la istifaal istifaal xarafu istilaa mooy xarafu kawe xarafu istifaal mooy xarafu suufe xarafu yu suufe yooyu boo leen di jàng dang leen di tarqiq boo di jàng dang leen di dang leen di tarqiq mooy dang leen di sewal doo leen rëyal doo leen dijjël dégg nga tarqiq mooy safaanu tafxiim tafxiim mooy duufal dafa am xaraf yoo xam booy jàng xarafu isti'la da nga leen di duufal ba sa gémmiñ gi fees od od os yooyu ñooy xarafu ki léegi nag xarafu yu dul yooyu nag boo leen di jàng dang nga leen di sewal gémmiñ gi du duuf du fees ah loolu la bëgg a wax bépp xarafu istifaal mu ngi mel ni baatu euh, baa baa xam nga ni ngay waxee ba ab bokkul ak ax ah, bokkul ak os bokkul ak ad bokkul ak or mu ne nag waaye nag wa xaadiran tafxiima lafdil alifi xarafu istifaal nag am na ay exception moo tax mu ne na nga wëttu nag eh, dégg nga mu ne wa xaadiran na nga wëttu tafxiima alifi ah ba alif na nga ko wëttoo duufal baatu alif sax ci xarafu la bokk waaye bu ko fe léeg-léeg bu ko xaraf boo xam ne dafa sew kom moom jiitoo yaa ngi dégg ni xaraf woowu alif boobu boobu lay lay topp xam nga li ma la maanaam alif dañ koy da na ko wëttu da koy tarqiq waaye nag su fekkee ne xaraf wi ko jiitu dafa xarafu tafxim la alif dañ koy tafxim su fekkee xarafu tarqiq la alif dañ koy tarqiq mën na mën naa ma expliquer par exemple qaaf xam nga qaaf xarafu lan la tafxim la parce que xarafu mu ngi bokk ci xusa daqtin qid qaaf dafa diis waaw bu jiitoo alif alif dafay diis maanaam doo qaala qaala ngay wax qaala qoo alif maanaam lim la bëgg wax daal alif moom amul atte lu dul bu fekkee ne moom nga tàmbalee su fekkee ne nag moom danga dafa ñëw gannaaw xaraf bu fekkee xarafu xarafu diis la alif bi dafay diis bu fekkee xaraf boobu xarafu woyof la liki kaana kaa xam nga kaa dafa woyof kaana doo wax koona wala koona kaana nga bu dee qoof dafa ñëw gannaaw qaaf alif bi dafay diis qooa qaala allahu moo tax mu ne wa xaadiran tafxiima lafdil alifi leer hamza alhamdu audu ihdina allahu thumma laami lillahi lana you want me to read the translation yeah but damay damay xool kii bi nii heure gée bi nii écart eh, jot na da ngeen may cinq minutes rek ma julli ñu yàggali incha allah ok incha allah hmm. foo bëgg ñu yàggali chapitre bi soo ko arrêté incha allah rahmaan rahim waa waaw mu ngoog wa hamza alhamdu da nga naan wa hamza alhamdu audu ihdina ah allah allahu summa laami lillahi lana hmm? maanaam hamza gi ci alhamdulillahi rabbil alamin ak hamza gi ci audu billahi min alshaytani arrajim ak hamza gi ci ihdina ak hamza gi ci allahu daf la bëgg a wax ixdar ayuha alqaari'u tafxima hadihi alhamzat maanaam hamza gi nekk ci alhamdulillah moo xam hamzatul qat'i la mooy hamza goo xam ne dafa am mooy mooy li ñuy liif gu dëgër wala cekkantu wala hamzatul wasl la mooy alif rek nee na nanga ko moytoo nanga ko moytoo tafxiim nanga ko moytoo duufal dégg nga hamza gi nekk ci alhamdu man bul wax alhamdu alhamdu wala aud wala ihdina wala allah parce que baat yi mujj daj eh, xaraf yooyu yëpp maanaam hamza yooyu yëpp dañ leen a war a sewal moo xam hamzatul qat'i wala hamzatul wasl la tax parce que ci ñoom nga tàmbalee hamza boo ci tàmbalee baat danga koy danga koy sewal léegi-léegi nag xaraf wa ca topp mën naa sew wala mu dijji tax sew ga yóbbaale la wala dijji gi yóbbaale la ba nga dijjal hamza gi dafa indi baat yu mel nii lu tax parce que yu mel ni nit ñi dañ ciy def mistake dégg nga de xam nga mi mel ni allahu xam nga la allahu bi ngay bi ngay laamu allahu boo bàyyiwul xel rek mën ngaa taf xiimaale alif ga mën nga koo duufalaale te doo ci bàyyi xel hmm? lum ci teg mu ne summa laami summa laami lillaahi lana ak laam gi ci ak laam gi ci lana waliyatalattaf ak laam gi ci waliyatalattaf wal yatalattaf gi fu mu nekk wal yatalattaf yéen ñu mokkal alxuraan wal yatalattaf wal yatalattaf Fatima Ibrahim war ngaa tontu loolu dafa am lu tax ma koy laajte njóoba sax war nga ko mën a tontu ndax jàng nga saar wi ah Adja Njóoba ah ah ah waxaat ko kaaf kaaf kaaf kaaf du kaaf de kaaf kaaf oh, ah, eh, waaye yow tontu nga ko rek macha allah tontu nga ko gis nga wala talataaf bi booy jàng alxuraan moom moo nekk ci digg alxuraan fii la alxuraan xaajee oh, hmm? boo doon compter baat yi fii la xaajee mu ne nag wala yatalataf wa ala ak laam gi ci ala llaahi ak wala daalin ak laam gi ci wala daalin nee na fexeel ba bu leen duufal rawatina bu fekkee ne xarfu tafxiim daf leen a topp xarfu duufal bu leen toppee nga duufal leen dafay yomb lool hmm? seetlu nga par exemple wala daalin wala xam nga ah, daad xarfu tafxim la soo bàyyiwul xel ci wa la boo bàyyiwul xel rek mën nga duufalaale laam gi jiitu daad bi mu ne nga bàyyi ci xel laam googu dafay sew bul wax wala non non wala daa hmm? wala laam gi nga xam ne moo jiitu taa wala yatalattaf wala yatalattaf wala yatalattaf laam googu da nga koy woyofal Hmm? nga bàyyi ci xel hmm. maanaam baat yi mu tudd yëpp daal seeni laam nang leen woyafal bu leen duufal comme ak wa alallahi gis nga la wa alallahi laamu allah gi da koy duufal waaye laamu ala gi da koy woyafal wal miima min maxmasatin wa min marad miim gi ci max maso ak miim gi ci marad nee nga bàyyi ci xel parce que dañoo dëkkaaleeg xaraf yu diif duuf duuf moo tax te dëkkandoo mën naa mu wàll te doo yëg ne wàll na yaa ngi dégg hmm? maxmasa xa miim bi waaw yes maxmasa Alaikum salam. It's good? Leave it till uh, Saturday. I have some questions. Saturday. Don't give it to him until Saturday. You're going to be here, inshallah, Saturday? Yeah, I will be here. So we highlight the, some points. Okay, inshallah. Yeah, he wants us all to drain this and that. And he's yeah, he said that. He's not going to change that. Yeah. So. But, what, but don't worry. I'm going to. Okay, I'll wait for you. Inshallah. Inshallah. Okay. ok euh, miimu maso maanaam dafa bëgg a wax ne ne miim bu bu mel ni miim gi ci maso parce que xaa bi heavy letter la soot bi heavy letter la te boo moytu rek nga diisal miim bi ndax ñaar heavy letter yi yi dend ak moom maxmasa léegi nag saa yoo waree woyofal ab letter boo ko bëggee pratiquer da nga koy tudd moom kese léeg-léeg max ma so wala marad parce que raa bi fii comme heavy letter la mu ne nga moytoo diisal marad mim mim bi ci mim mim bi topp ci mim bi ko jiitu hmm? lu ci topp wa baa barqin baatilin bihim bidi waxris ala shiddati waljahri alladi fiha wa fi ljimi ka xubbi sabri baat yi muy wax ni ay baati alquran lañ <laughs> baat la ñuy bokk ci nekk ci biir alquran yu lay wax ne boo leen di jàng nga moytu nga moytu mu ne eh, na nga moytoo duufal ci barq parce que xaraf wu sew la ak baa gi ci baatilin ak baa gi ci bihim ak baa gi ci bidhi hmm? waaye nag sewal ko bum tere nga feeñal uh, sifatu shiddati ak sifatul jahar ndax baa dafa am uh, jahar ak dafa am shidda shidda mooy dafa dëgër boo koy tudd nooy gi dégg nga jaxër moo doon safaanu hams ñaar yooyu boo leen di boo baa boo koy tudd nooyi gi dafay tëju boo koy tudd it euh, articulation point bi baat bi dafay tëju ndax dafa dëgër mu ne euh, sewal gi nga koy sewal nag bu mu tax nga sàgganee dëgër gi mu dëgër ak biir gi mu biir dégg nga wax ji waa xaris da nga xiir nag ala shiddati ci melow shiddati wi ci ba awal jëhëri ak melo jëhëri alati gi nga xam ne fiihaa mi ngi ci baa wa fil jiimi ak ci jiim ka xubbi sabri rabwati nujutu that wa xajjil fajri baat yi yëpp dégg nga bi nekk baa nekk ci xubb baa bi nekk ci sabr baa bi nekk ci rabwa baa bi nekk ci xajj ak nekk ci fajr yii yëpp na nga euh, shiddatu gi nekk ci ñoom Hmm? maanaam ñaari baat yi ñaari xaraf yi xarafu istifaal lañ te istifaal melow lompañ la melow faiblesse la waaye nekk giñ nekk xaruful istifaal yore ay quality of weakness bu mu tax nga fàtte ne am na ñaari quality of strength yoo war a bàyyi xel mooy aljahru wa muy baa bi nekk ci xub ak baa bi nekk ci sabr ak baa bi nekk ci rabwa ak baa bi nekk ci ujtuthat baa bi nekk ci xaj ak baa bi nekk ci fajr dégg nga hmm? wa bayinan muqallilan in sakana wa in yakun fi lwaqfi kaana abyana na wa bayyinan na nga leetar na leeral na nga fësal and make clear the letter of qalqala muqalqalan wala muqalqilan muqalqalan xaraf wu ñu qalqalal in sakana wa in yakun fil waqfi kaana abyana xuruful qalqala yi qutubu jëdd nena na boo leen di tudd na nga bàyyi xel mu leer rawatina nag su fekkee da caa taxaw soo ca taxawee dafay gën a dafay gën a fës wa in yakun fil waqfi kaana abyana qul huwa allahu ahad xam nga ahad da wax ahad bu dee dafa nekk ci digg bi nag qad qad aflaha ak yoq tuulu waaye boo cay taxaw ci lay gën a fës ahad wa tariq hmm? loolu mooy daf kon xalqala dafa am xalqala bu mag ak xalqala bu ndaw nee nga bàyyi nga bàyyi xel ci xalqala yii nii yëpp ay atte yoo xam ne ci biiri atte yi tajwid lañ bokk waaye dafa di fu nit mën a def tarxiise moo tax mu tuddee leen tanbihaat ay warning wa xaa a xasxasa axatul xaqu wa siina mustaqimi yast yasqu xas-xasa mooy nekk ca suratu yusuf al aana xas-xasa ak mu ne wa xaa xas-xasa na fexe ba bul tafxiim xaa gi nekk ci xas-xasa ndax ci xarafu tarqiq la bokk xarafu woyof xaraf yu sew yi la bokk bu duufal bu leen ndax dend gi ñu dend ak xaraf wu rëy xaraf wu duuf mën naa tax nga juum ba duufal leen soit dafa diis dafa duuf hmm? ndax xarfu isticla la ta tamit xarfu isticla la qaaf tamit xarfu isticla la kon soit bi ci xas-xasa ak ta bi ci axattu ak qaaf bi ci xaqu bumu tax mukk nga diisal xaa boobu nga xam ne dafa war a woyof ndax xarfu istifaal la wa siina mustaqim siin gi ci sira mustaqim siraat mustaqim ak yestu yestu ak yasqu siin yooyu nee na nangal fexe ba nga sewal leen ay xarafu tarqiq lañu dëkkaale giñ dëkkaaleeg xuruf euh, shidda ak xurufu dégg nga euh, isticla mën naa tax nga juum ba euh, dégg nga diisal leen te waruñoo diis yii nii ay tanbihaat la maanaam dafa bëgg a wax ne xaraf yi nga xam ne xarafu istifaal la dañ leen a war a lan dañ leen a war a sewal xarafu isticla dañ lañ koy duufal dañ leen di duufal léegi nag léeg-léeg euh, xarafu istifaal nga war koo sewal waaye boo moytuwul rek mën nga ko duufal te doo ci bàyyi xel ndax position ba mu nekk yooyu nag lañuy ñuy bàyyiloo xel ci bunt bi yaa ngi dégg de yaa ngi dégg bañ a duufal lu duufut euh, farata la ci njàng mu ne nga bàyyi xel nag bari na boo duufalee lu duuful ngir dend ak gi lu duuf ba boo koy duufal doo ca bàyyi xel ci lay joxe nag ci misaal yu bari xurufu istifaal it dañ leen di tar dañ leen di sewal waaye am na ay exception exception yooyu danañ ca danañ ca ñëw mel ni laam bu nekkee ci baatu allah am na fuñ koy sewalee am na fuñ koy duufalee lu mel ni raa mooy bunt bi ci topp raa léeg-léeg ñu sewal ko léeg-léeg ñu duufal ko hmm? raa léeg-léeg ñu sewal ko léeg-léeg ñu duufal ko damay bañ darsu bi euh, gudd lool lool lii nii doy na waaye nag euh, ñu ñu ciy bàyyi xel surtout buntu raa bi di ñëw ak ya ca topp muy laam ak nun sakin ak tanwin yooyu mët a bàyyi xel la yu mët a bàyyi xel kon jàng nañu tajwid xam nañ ne farata la su fekkee ne tajwid e, ci xam sew-sew lu nekk na mu tudd bu ko ñenn taxaw mu wàcc ñenn waaye nag application tajwid ci njàng moom farata la ku nekk daf ko war a def te tajwid kat mooy lan xaraf wu ne ñu jox ko xaqam dégg nga ak lañ ko sédd xaqam mooy xaqi cosaanam lañ ko sédd mooy xaq yi nga xam ne circonstance ko ko jox lu mel ni xun naag yooyu le lu tax ñu war a jàng tajwid mooy noonu alquran yàlla def ko wàcce ci tajwid yonentu sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci tajwid ba muy agsi ci ñun waru ñoo mujjee puso bi mu réer lu la ci waaye mën a wax nag amul dara lu la ci mën a dimbale lu dul foo toll rek di pratique jàngi ji ko jàng ci ku ko xam waaye foo toll di ko pratiquer booy pratiquer na nga bàyyi xel ci yi nga xam ne soo deful payewul attention euh, close attention rek mën na la lëre mooy fi nga war a tarqiqee nga tafxiim fa wala fi nga war a tafxiimee nga tarqiq looloo tax mu indi yi nga xam ne lu gën a bëri dafay euh, réeral kii jàng hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam في علي ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع